comme fàttali moo am na solo yéen ñi nga xam ne waxtu wu ne yéen ñu topp ci chaîne bu am solo bi Tawfekh Production di leen ñaanal Tawfekh bu leen fàtte di abonné ndax bu ngeen xoolee ci suuf rek euh, di ngeen gis bu baax a baax cloche bi dangay bës sa baaraam rek mu abonné la dugal la indiqué bu baax a baax fi ngay jaar ba nga xamante ni vidéo bépp bu ñu dugal information dara du leen ump ak chaîne de production bi di Tawfekh production di ànd ak yéen ci Tawfekh kon mbokk yi bu leen fàtte di ànd ak ñun ak suñu ay programme ngeen di abonné bés cloche bi ngeen mën a bokk nag ci ñi nga xamante ni luñ dugal dara du leen ci ump euh, ñu wax lu soxal Ousmane Sonko ba tey on a vu ses sorties euh, par rapport à certains médias yu mu dem dem na ci yenn groupe de médias yi donc mu nekk sorte yoo xam ne Ousmane Sonko je pense que tey jii c'est quelqu'un qui est en train de rectifier beaucoup de choses sur le plan même de sa communication parce que aussi dañ ko waxtaanee même. ay xuppa yëpp man nag dama koy wax mu leer euh, mboolem ñi nga xam ne ñoom kenn du laal Ousmane Sonko moom Ousmane Sonko yàlla la mooy yàlla waaye nañu waxante dëgg Ousmane Sonko dès le début il faisait beaucoup d'erreurs su le plan de sa communication peut-être que du sa faute nag ñoo ko waroon a gën a encadrer aujourd'hui force est de connaître que ne reconnaître que ne tey jii mi ngi commencé di rectifier et que normal parce que li ñu doon wax naan immaturité politique la dafa mel ne moom mi ngi tontu gars yi ci beneen doxalin boo xamante ni tey jii également parce que li ma wax sànq rek ñaar euh, ñaara man kenn te ñett bëri il faut que aussi ngay impliquer les autres ci li ngay dem mais maintenant li tax ma wax loolu mooy gis nañ ko mu dem ci des média dem na ci Walfadjri euh, kii Sen TV comment euh, dirais TFM je pense que tey jii dem yooyu aussi. c'est important xamul tax parce que Ousmane Sonko moo la gën a xam ne bu bëggoon toog fii ci roxoom rek di liggéey mënul dem fenn il faut que bu ànd ak gars ubbeeku te médias yu bëri dañu doon critiquer sont sont un peu euh, fermé wu bo peu par rapport ak yenn média yi TFM on a vu Bouba Ndour kalaame ne ko ba tey devant l' émission jàkkaarloo ko Ousmane Sonko lay zappé seen chaîne ainsi de suite tey on a vu euh, bi ñu am ñoom ñaar donc c' était beau à donc ma jàpp ne. tey ji il commence à rectifier certaines erreurs yoo xam ne il les avait commise euh, bi nga xamante ni moom moo di rek euh, jamono ji nga xamante ni il les ave euh, donc commises jamono ji nga xamante ni mi ngi doon nekk si door ci lii di arène politique bi donc je pense que aujourd'hui tey jii euh, mi ngi commencé di xoolaat bu baax a baax a baax doxalinam euh, parce que on ne peut pas quand même nekk ci pays boo xam da nga bëgg farfarloo jàpp ne média bii rek laay dem di wuy te loolu nag dafa bëri ci politiciens même ceux pouvoir loolu moo fa a jeex c'est un de cœur bu may lancé waale da gis ñoo xam ne dañ naan <coughs> bon chaîne bi rek la ñuy dem man 7TV rek laa dem kii ne man Sen TV laay dem kii ne Walf kii ne nangam moo amul droit ñoom ñëpp dañoo war a yemale ñëpp médias yi média privés yëpp yem ba ci média national bi chaque jour je le réclame que dafa war a dalal même des leaders de l'opposition pourquoi pas Ousmane Sonko am débat foofu au niveau de la chaîne nationale c'est normal c'est notre chaîne nationale et ceux qui sont là-bas ñi leen di fay c'est l'argent du contribuable wala leur paye par ça maintenant tey jii même le média privé warul farfarloo nee naa chaque fois ku bëgg def politique nag tu es journaliste tu es mu dem nag def son parti politique wala dem def son mouvement wala ànd ak ku donc euh, dans dans l'exercice de tes fonctions ci wàllu métier journalisme journalisme da nga war a appliquer les règles de l'art def li respecter les règles de l'art surtout euh, déontologie ak ak ak lii di éthique je pense que tey jii le commentaire il est libre le journaliste ne peut pas être un militant passif euh, di ko wane c'est-à-dire que il peut le il l'être nit la doomu aadama la mais dans l'exercice de ses fonctions warul am parti pris warul am mënoo nekk juge et parti bu dee nag da ngay bëgg loo neex bu fekkee da ngaa bëgg ne boo waxee dara waa Ousmane Sonko sa Sonko sa saaga la yaa ngi wàcc yoonu euh, liggéey boobu ñu la dénkoon bu dee da bëgg loo xam ne boo ko waxee waa pouvoir bi saaga la yaa ngi koy wàcc waxal li nga xam ne objectivement la amul farfarloo amul xaaj seet maanaam njaaxaanaay nga ci tëddee kum neex nag nga gàttanu wax jooju mu neex la kum neexul neexul mais moo gis menaces yi ci am nii yëpp déjà waa kii Salié Bamba Kassé ne dañ porté plainte mboolem ñu ko subir mais c'est normal amuñ droit menacé fii journalistes yi dañ leen war a jox seen cër parce que à chaque fois ku fi feeñ fii ku fi feeñ gis nañ fi ay tey jii ñoo xam ne ponk lañ ci ay société dañ daan sapar sapare xuma lambar lambari ak layam layam yi ci ay plateau naan jël ma ngir yàlla extrait gis xam ne fii ponk la kilifa gu mag la woon juróom mais danaan daagu di tabu ngir ñu jël ko extrait bu mu jàlle télé rek tey jii bu ñu accès ci yenn eh, eh, responsabilité yi di di jaay eh, fuuy wala du ma dem fenn wala damay jaay jafe nangam loolu moo fi war a jeex télé yi yëpp ñoo yem rajo yëpp ñoo yem c'est vrai que war nañu assainir d'ailleurs ñu ngi ci depuis le 15 mars ubbi nañ ay euh, ay liste di lijjanti assainir le milieu avec la carte de la presse nationale maintenant loolu dañ ko assainir parce que po pootum biir néeg nga xam ne ñoo di les xam ne ce sont les ñoo leen créé Sonko bu njëkk ba muy woote je le je le précise bien y avait que la chaîne DTV ñu doon ko couvrir presque. ñaari micro yooyu nga fi doon gis ma tudd sama benn naataango boo xam ne ay temps sax doon na ko classe naan waa kii fu toj ñun ñaari micro rek laa fa gis ba bañ créé la ko ci problème ci fi mu doon liggéey c'est-à-dire que tey jii bu dem ba bu wootee at bi yëpp bu dee 15 heures la woote 14 heures fekk la fa cest à am na dayoo bi dañ ko koy nangul mais na jàpp ne presse bi en moo ko may moo tax nag Euh, il a compris que ne tey jii war na rectifier yenn erreur yi nga xamante ni rapport la bu mu am ak yenn euh, média bi mu fexe ba am ak ñoom rapport bu am solo parce que on ne peut pas gouverner contre une presse c'est c'est c'est important comme ni wax ne Macky Sall on ne peut pas gouverner contre des jeunes mais on ne peut pas gouverner contre la presse la presse c'est elle qui crée tout qui crée l'homme politique euh, dafa nekk le quatrième pouvoir te ku am presse bi rek am nga lépp donc il important que nag ni mu def nii rectifier le tir ce n'est pas encore trop tard que c'est bien à saluer na gën a doxal loolu bu waree dem ci chaîne benn mu dem fa buuru dem il a droit nag mu xam moment yi mu communiqué loolu comme neex la du tout temps nga lambar lambari ci ay chaîne di wax lu neex di def toj toj comme ñenn ñi mais tamit aussi yenn saa yi booy génn ay sorti yemaleel ñëpp loolu aussi c'est important à préciser ah mbokk ku jàppul sa sàcc rek daf laa ne waa mi naan électricité générale agsi nañ sa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 gën noo gàtt noo tawféexi sëriñ bi